asalaamu aleykum wa rahmatullah wa mbokk SNS TV santé maa ngi leen di nuyu ku nekk sa tur ak sant di leen jox seen wàcc waaye tey saaku ci yéen ñaan bu baax a baax a baax di wax ne eh, gën leen abonné ci chaîne bi di SNS TV santé ndax ay secret yu ama am solo lañ fi wàccee yu jëm ci li nga xamante mooy faj seen tawat donc nag kon ku ci nekk bul fàtte like vidéo vidéo yi teyit na ngay partager di abonné ci kàttanu suñ borom ñi nga xamante ne aussi jot nañu abone maa leen di wax ne tabaarakallaa fiikum yàlla na yàlla fay leen sàmm leen te aar leen bu leen fàtte di di e, partager vidéo yi ndax lu lu baax ak lu am njëriñ dañ koy partager ndax lu ama am solo la képp koo xamante ne aussi soxla na euh, jànkonteeg ak ñun maanaam soxla soxla na jëflanteeg ak ñun nag ñu woo ci 77 345 93 40 wala nga def 77 cinquante 55 50 ci kàttanu suñu borom boo ñu woowee dang ñu jot ci kàttanu suñu borom tey nag faj seen tawat indil leen secret bu am am solo secret boo xamante ne dafa jëm ci poftan xam ngeen ne poftan dafa am njariñ yu bare bare bare yoo xamante ne nit ñi sax xëy na xamuñu ko te boo gisee boo leen seetloo poftan bëri na ci ci ci ci ci dëkk bi waaye ñu bare bare joxuñu ko njëriñ te pourtant lu njëriñ yu bare bare bare bare moo ca nekk tey da ngay seetlu ñu ci bare bare waa si jigéen ñi dañoo am ay ay ay àndandoo àndandoo boobu dafa leen di xaañ li nga xam mooy borom kër ñii mu xañ leen li nga xamante ne mooy wàllu doom ñii mu leen teg ay nakkaru xol xam nga àndandoo dafa lay dafay dafay yàq lépp loo xamante ne Euh, lépp loo xamante ne yaa ngi ciy jëfandikoo rek mu daal di koy yàq am na ñoo xamante ne mënuñu am jëkkër ndax seen àndandoo léegi nag dama leen di jox benn secret boo xam ne dafa dem ci dafa jublu ci pëftan ngeen daal di koy def incha allahu rabi ku ko def yàlla dina ci defal njëriñ yàlla dina ci di nga ci gis sa bopp ci kattanu suñu borom da ngay wut juróom-ñeenti juróom-ñeenti xobi pëftan waaye yu teen ngay wut. yoo xam ne dañoo teen jàkkaarloo asamaan noo koy wutee doo ko daggee ak sa loxo déedéet da ngay jël bant boo jëlee bant nga daal dem ba ci garabu pëftan bi nga daal di koy dóor di ko dóor yu wadd yi nga xam dañoo teen nga daal di koy jël juróom-ñeenti yoon mais balaa ngay dóor nag na nga tari faatixa ndax loolu mooy euh, jënd bi loolu loolu lañ koy jëndee donc nag boo ko dóoree noonu bu waddee yu teen yi nga daal di koy jël ba mu mat juróom-ñeent boo jëlee juróom-ñeent yooyu dangay bind bu dee mën nga bind benn bu ci nekk ci ci biir danga nga bind tabat tabatiyaada ba mu jeex boo ko mënul nga daal di wuti ku koy bind mu bindal la ko benn bu ci nekk soo paree nga wut sa benn siyo bu mag nga daal di ci def ndox ba mu fees nga daal di jël poftan yooyu xob poftan nga daal di ko ciy def nga jàmm ko nga daal di koy sangoo juróom-ñeenti yoon ci guddi ci kàttanu suñu borom bu dee gàllankoor la woon mu bu lay tere borom kër da nga ko am dana dañ ci yow ba ba nga am ko bu dee da ngay am borom da ngay am euh, nit bu lay bu lay bu lay labat si te la labat si ba pare saa su ñëwee ku ñëw rek ba nga yaakaar yaakaar ne fii kii mooy kii mooy waaja rek kooku dem ñu ne boobaa dina dañ ci yow ci kàttanu suñu borom te ku ñëw dina toog dina dina dina la dina la jël ngir soxna ci kàttanu suñu borom beneen ba ca des aussi moom mooy ci wàllu cat la poftan dafay faj cat noo koy defee dangay wut sa ñetti xobi poftan xobi poftan ngay wut nga daal di wut ñetti donji këriñ nga daal di wut ñetti puso ci kàttanu suñ borom ak xorom léegi nga wut sa leket wala sa bool yaa xam noo koy defee nga daal di jël euh, ñetti poftoni nga def ko ci jël xorom bi ak ñetti donju këriñ yooyu ak ñetti puso yi nga daal ko ci def def ci ndox bu la doy pour sangu nga yëngal ko ba mu yëngu ba ndox ba ba xorom ba seey nga daal di koy sangoo bu ba amoon cat bu feesoon sa yaram dell ci saasa lay dañ ci kàttanu suñu borom incha allah rabbi léegi nag ma ñëw ak ci reenu poftan reenu poftan tamit lu muy faj bari am pagaille léegi nag bu dee da ngaa amee bu dee danga ngaa dëkk euh, dëkk bërëb boo xamante ne euh, saay saay dañ fa bëri maanaam nitu guddi yi xam nga euh, dañoo doy waar ñoom léegi nag wutal ma reenu pëftan boo wutee reenu pëftan nga daal di koy dëbb ba mu mokk wa ilaa nga wol ko ba mu mokk nga daal di jël benn laaj. nga dëbb ko jaxase kook moom nga koy suuroo gisa fi nga koy suuroo bu dee neti gudde mu ngi guddi mu ngi fa dina daw bàyyi leen fa waxet wa ilaa bu dee mu ngi fa dina na la bàyyi li ngay def yaa may sonal boobaa kon day jof ci kàttanu suñu borom donc loolu lañ leen indiloon bonus baa ngi ñëw bonus bi nag mooy liñ leen di baaxee ci wàllu wird tey nag liñ leen di baaxee ci wàllu wird mu ngi nii boo dee danga bëgg saa soo génnee yàlla di la musal ci ay noon maanaam musal la ci ay ay nga dajak ay ay xeex ah parce que léeg-léeg nga génn dajek xeex yow boo ko ci xeex ñu xaañ la xeer wala ñu gaañ wa pour zéro donc nag yooyu noonu nga nga bëgg yàlla musal la ci seytaane looy def ginnaaw ba nga xam ne julli nga fajar ba ba war a génn nga daal di euh, commencé wéddi nga def astafirullah cent fois nga def asbunallah wa neemal wakiilu incha allah rabbi nga daal di ko def cent onze fois da ngay ci onze yi daal ñëw si cent yi dem ci mille yi ci kàttanu suñu borom boo ko defee ci kàttanu suñu borom la wala lépp loo xam ne ay la incha allah doo dajeeg moom ci kàttanu suñu borom incha allah rabbi donc mbokk yi tey loolu lañ leen indiloon ci li xam ne mooy seen secret tey yeneen ak yeneen ñu ngi fii lu ci bare bare bare bare ñu ay jaaro xaqiiqa dañuy joxe li nga xam moom mooy jaaro bàyyi rek ay ay lu bare bare bare dañ koy joxe fii ci euh, Sen TV santé kon nag bu leen fàtte abonné te dañ leen partagé ndax lu am am solo ma fi nekk képp koo xamante ne aussi da sa question boo xamante ne da sa question boo xamante ne da nga ko war a a da nga ko war a posé ko dugal ci commentaire boo ko defee ci commentaire rek incha allah rabi après dinañ dinañ la tont ci kàttanu suñu borom asalaamaaleykum wa rahmatullah tabaarakallaa fiikum di leen seen wàcc waay asalaamaaleykum wa rahmatullah